waaw weeru koor mbokki Sénégal man la Souhaïbou Diop GCB di xarit ci Oustaz Sahid Diallo suñu liggéey nekk benn GCB ak Muslih benn lañu man la bu tey ma ñëw fas yéene waxtaan ak yéen ci lenn ci sketch yi naka lañu ñu war a taxawee ci biir weeru koor gi ak ni ñu gisee ni nga xam ne noonu la taxawee. waa jërëjëf Oustaz Sahid Diallo jërëjëf waa Muslih point com ak Muslih point mooy TV Oustaz dañu seetlu ni koor gi bu jubsee théâtre kat yi sketch ñi def ay sketch dañuy foye lislaam ji rawatina koor gi man ma gëm ni koor am na lu ci borom xam-xam yi dee jàngale laataa ñoo xàmmee ak bi ñu xàmmee ba léegi ci kii woor yan tuyaaba la ci mën a am defe naa loolu moo doon ëpp solo ëpp ci ëpp ëpp ci euh, tuyaaba nga jël sa nopp dem jox ko koo xam ni euh, ni ma ko waxee léegi dañuy jël kilifa goo xam ni moom moo yilif këram di woor ñu wane ci théâtre kat bi ni kilifa yi dañu ñàkk jom dañuy woor ba ngoon woor ba digg bëccëg ñu dugg seen néeg di sàcc ji naan di wala dañuy jël seen lekk doom yi di ko lekk te defe loolu amul fenn ci Sénégal beneen bi mooy imaam ni Oustaz Sanit Diallo daf koy wax muy wax bu am solo fii ku fi mën ku fi toog ak loo mën a représenté imaam mooy sa xalifa ak ku mu mën a doon ci senegal kon imaam yi ni ñu leen di diaboliser des fois ci koor gi wane ni imaam yi dañuy ñëw ci mbedd yi di julli di xool xale jigéen loolu c'est pas vrai amul amu ci benn imam boo xam ne danga nga fekk ci weeru koor ak lu dul weeru koor mu toog ci mbedd mi di woor di xool xale jigéen yi wala muy ñëw di woor bay jekk-jekk di dog di lekk loolu kenn su koo gis ci Sénégal mais gis nañu ni xëy na diine mooy li li li li gën a sensible ci xolu jullit ñi wala jàpp na ne xëy na pour léegi oustaz Makhtar Sarr mi ngi koy wax keroog maa ngi koy jaajëfal xam nañu tey bu ñu nee duut baaraamu lislaam oustaz Sahid Diallo dina jóg Sohaybu dina jóg keneen dina jóg bu ko defee ñu publicité leen seen mbir te loolu du dem jullit il faut que am ci fayda bu baax a baax a baax il faut que ñu am fayda ci loolu ñu bañ a yem ci wax ji kese mais ñu dooleel ñu ne ci diina ji benn mooy benn bi ñaareel yi ci des mooy ñu koy jëflante ak ñoom di ko manifester ba kenn ku nekk bañ a ci sa kër rek ah man laala laalaguñ sama sëriñ laalaguñ sama tarixa naaxaar bañ laal sama tarixa déedéet parce que bu ñu paree Oustaz Sahid Diallo borom muslih moo koy faral di wax bu ñu paree ci Seyduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu nga jëm ca taalibe mi kon bu ñëwee cocc weeru koor na jullit yëpp jóg ni lii du ci dal jullit du wooree nii ndax kooru catholique yi chrétiens yi kenn du ko diaboliser noonu kon bu ñu laalee l'islam na jullit yi jóg manifester yi fi ba ñu xam ne naqari nañ leen ñu arrêté ko parce que nag am na leneen lu ñu war a wane ci weeru koor lu dul am na leneen lu ñu waroon war a ne sëriñu daara lu dul loolu ndax lépp lu ci nekk ustaas yi tegal nañ la ko bëccëg gi jàng ci alquran wax nañ li sax kii woor di nelaw nelaw yu bari dañuy xool sax est ce que kooram dana am tuyaa ba ci kooram woor yéen doo nelaw ba ba ngoon jot nga jóg ndogu am nga koor de mais est am nga tuyaaba kon yooyu yëpp ko borom xam-xam yi jàngale na ko est-ce que si théâtre nañ ko nañ ko wane mais ay nit ñuy làqatu di naan ay sëriñu daara yoo xam dañuy dem di xool ay jigéen wala nangam loolu c'est pas vrai kenn mësul gis borom xam-xam bu woor ba ngoon mu dem di doxaan yi salaamaaleykum wa rahmatullah Mouslih TV ca kaw ca kanam